boo ko bëggee inna salaata tanha anil fahshaay waaw nit ñaa ngi julli ba noppi jikkoy baaxul te jullee ngi fi mu nekk ba léegi mais nit ñee ko fekkatul fa mu ne dama ni bëgg naa sëñ Tuubaa bëgg bokkul bëgg sëñ Tuubaa boo ko defee da lay xëcc ba ko doon jàkk xam ne yàlla ngi ci yow borom karbot su tuut soosu borom muuraay li tuut soosu te matul kilo di dis gantan waa ji damaa wax léegi ne benn yoon la musa a dégg Cheikh Mourtala tudd Serigne Touba am na ku ma ko wax léegi muy Mourtala mu tëdd fi mu ne ma ànd naa sëñ Mourtala di dem ko fee rek euh, euh, kër diw la fee nag mooy mooy kër Serigne Touba mu ne ko bul wax fee rek fépp kër Serigne Touba la Serigne Touba moom dañ ko xam ba dañ ko waxtaanee Serigne Saliou Touba bu barkeb Seexul Xadiim manes na cee dox loola fañ barkeb Seexul Xadiim mën a fekk jigéen ju musta am doom ñu am loo ko dem ci barkeb Seexul Xadiim barkeb Seexul Xadiim attan na lépp barkeb Seexul Xadiim Serigne Salim Mbacke moo wax sëñ Gueye Badar ni ko barkeb Serigne Touba bu suuf ak asamaan doon jaxasoo te kenn xamul lan moo ko def barkeb Serigne Touba dina ko téye liggéey xoolal waxatuma ci affaire tarixa dogalul yàlla lay wax tarixa yëpp a baax Macky Sall parti APR la yor waaye tey moo téye drapeau national MS lañ def ci drapeau national bi parti la yor comme ñëpp waaye tey mooy mooy nation bi Cheikhul Xadim maqaamam Xaadim Rasulaay moo ko yor barkeb Serigne Touba ñëpp lay laal ku bëgg ak ku bañ taw waxsat la ñëpp ci jot bis bi da ci la bokk.